alayka salaam la ya man mansula ya muqtaar Serigne alayka salaam la ya man mansula ya muqtaar Serigne Abdoulaye Tabax Mbacké alayka salaam la Lila. dañu ñëw ngir sant yalla ci yow sant sëriñ ci yow sant nak jëm ci nga xamé ni mom lañ andal mbolo mi dañu wax ni nan jolos nonu jota suñu cant ci mom ndax ku neex andal ndax lutax tax mu ànd ak nun ni ñi def asgor nonu def nonu pinti pant ba mënatut ko ñak mënatunoo no ñak <laughs> sama ju bax ja non la defon ñep ba mo ne mo Cheikh Moustapha waaw lolu Cheikh Moustapha pinti pant ba kenn mënut a jógati ci mom koku non la def xam na suñu yitte xam am na suñu yëg fonk nanu rafetal na ak dëkkandoo ba lii fi nekkat doo loo xam ne propagande tey sax daa amoon ay soppe am ay xarit am ay bokk tey nag dañ ne ñun ñëpp a nosu topp ci ginnaawam di taalibeem lu mu bëgg ñu ànd ak moom moom nag ak bëggam genn rek mooy sa ngërëm lay sakku waaw sa ngërëm lay sakku waxtu wu nekk ak di fas yéene doo ko gis ci lépp lenn luñ naan acam doo ko ci dégg fas yéene di jëfe ndigal di bàyyi tere moom nag suñu xol set na ci moom ndax bis bu ñëwee fii noo ànd ak moom te la tax noo ànd ak moom suñ Tuubaa ak jub gi bu fi jug gi nekkul woon nu sotti jug ñoo ànd ak moom ku am ngor la ku am diine la ku am lislaam la taalib sëriñ Tuubaa la ku la bëgg la te yéen laa liggéeyal dafa amal leen luñ boolaa ci liggéey bi rek mooy nun ñuy jàng alxuraan kenn ku ci nekk bu ñu ko jàngee ba nopp jox ko ki tax ñu di jang muy si way jurwa nañ ci ñaanal suñu Sidi Mbacke yalla guddal aw fanam yagal ko fi wëral ko doli ay xewalam ba lim yene liggéey Serigne Touba ci yoon wi mu liggey ko nu and ko moom fekk ko tetal ko ci barke Serigne Touba lol dal mo doon suñu wax liñ bëgg wax lepp xëjul ci jotaay bi kon nak noongi sant bu baax di gërëm bu baax waaleykum yéen mi nga xamne ne and ak Cheikhul Khadim Serigne Sidi ci ay goor ak ay jigen yéen ñepp Serigne baa ngi leen di delloo xam nuyoo di leen nangul tam seenub siyaara ci njiitul Serigne Cheikhul Khadim mi ngeen àndal ak bokk yi nga xam ne ñoom la àndal ak taalibe yi nga xam ne ñoom la àndal sëriñ bi nee na yéen ñëpp gis na seenub liggéey nangul na leen ko yàlla na leen Serigne Touba fay ci la tam mooy li nga xam ne sëriñ bi wax na ko léegi muy wax ju am solo ci jot li ko sëriñ bi ci sëriñ bi mu ngeen àndal sëñ Cheikhul Khadim ak ni ngeen àndeek moom ak melokaan wi ko yàlla may ba tax ngeen ànd ko moom loolu sëriñ bi nee na xolam sedd na ci xelam it dal na bi ci des mooy di sant itam njabootu sëñ Daaru Asan gi yëpp ndaxte yéen kët yoon wi cër bi ngeen ci am kenn ëmpale wu kon su ngeen maasee ànd ak seen doom ji di seenub sët di seenub jarbaat ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal te ñu bokk ci kër yu fasanti ko loolu ku gis loolu da nga xam ne sëriñ bi ma nga ca yoon wa nga xam ne mooy yoon way dëgg-dëgg sëriñ bi nag mi ngi sant ñëpp jigéen ji tam ñu ngi ci ginnaaw waa kër gi ñëpp ñëw nañ jigéen ñëpp ñëw nañ soxna Njóoba soxna Baali ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di jot li yéen tam seen nuyoo yéen jigéen ñi ngeen jot li waale ko seen mboolem jigéen mboolem moroomi jigéen yi ak ñoo ñoolem gone yi yi nga xam ne ñoo bokk ci daayira bi mi ngi ñaan nag ci yàlla ci barke Sëriñ Tuuba ak barke borom bis bi ngeen yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk yàgg am li ngeen bëgg yàlla leen li ngeen ragal ci barke Sëriñ Tuuba barke Cheikh Abdoulaye wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu def leen ndànk man nag maa def kéwalam waaye ba ma ko jàppee ba léegi rëccu ma ci lenn yàlla taxawaay bi yàgg amiin mu mel ni gis ngeen Serigne Seexul Xadim Mbàkke ak mboolem daayira yi nga xam ne si ni ñoo bokk ci Xidmatul Xadim siyaare bu mag bi nga xam ne si ni at bu jot ñu ànd koog sunu Serigne muy Serigne Seexul Xadim Mbàkke moom Serigne Sidi moom Seex Abdou Lahad Mbàkke bi nu jógee ca kër ga ànd ak daayira yi ànd ak wóllëre yi am di jàmm yi ak cortège bi fépp fu nu romb ñëpp naan jërëjëf Serigne Touba ñu ànd ak jàmbaar ji nga xam ne si ni wax naa ko ci appel bi maamam Seex Abdou Lahad rek mooy li ko ñor ko waye tay ji sunu siyaare bi mbollem ko ànd ci siyaare bi xam nga ni ak yokute am na kon bu ko defee dan dun guddal dañ jox Serigne cheikhul Xadim mbake mom Serigne Sidi mom cheikh Abdoulaye Laxan mbake ci siyaare bu mag bi nga xam ne si ni ànd na ko mbollem fédération khidmatul khadim ci mi ak bitim réew mi siyaare si Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke kon Serigne bi dañ lay bàyyee kàddu gi ñëwaat nañ ci siyaare bu mag bi nga xam ne si ne at bu jot ñu di ko am lan ngay wax mbokki taalibe yi ginnaaw bi nga nuyoo ba noppi. auzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalu man laysa lahu kufaan ahad salaatuhu anni alal abdil ahad maa ngi sumay samay kaddu ci waxi Abdul Ahad boojee moo xam ne adda xaltu fii jay bika yaa mawlaaya kulli yi fa takk fi neen balaaya jël naa sama lépp tàbbal ci poosu seexul xaddim ni sama kilifa tey ñaan mu fegal moom mboolem balaay amiin loolee ñu dégg ko bu baax doo fas jël suñu lépp ak lu ñu am tàbbal ci poosu Serigne Touba tey ñaan mu bañati koo génn mukk fas yéene tamit ñun ak ñiñ àndal duñ def mukk lu ñu ciy génne ñoo ngi sant bu baax te sant gi ñi koy tàmbalee ci kilifa yu baax yi nga xame ne dañoo ànd ak ñoom ci ziar bii di ko tàmbalee ci Serigne Mamour Kane mi nga xamee ne 2011 ba léegi bi ñu tàmbalee ziar bi mi ngi ciy ànd ak ñun Serigne bi xàmmee ko ràññee ko lool. ba léegi ni biñu jotale jotalee addi ji ba nopi bi sëriñ laaj jaxate naree jël kaddu sëriñ bi ci bopam moko xal na ko suñu mamour tan ñu waxu mu mu dëpp ko micro wax ji lepp mu mat seuk ba niñ ko bëggee won ak niñ ko bëggee jotale ko mu matalee ko noonu noonee sëriñ Abdou salam ni ak kilifa yu bax yi ñandal ñep gis nañ fi jotay bi wa kër Madiba Sylla ñi ngi fi waa Kër Sëñ Daaru San Njaay ñi ngi fi ñooñu ñëpp ñu leen di sant bu baax di sant taalibe yii nga xamee na dama ànd ak ñoom ba luñ lu ma yëkkati lu jëm ci mbirum sëriñ bi kenn du leen ci jiitu maa ngi leen di sant bu baax a baax waaye tamit ñu war a wax alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu suñu boroom dimbalee ñu am xelum mën a liggéey sëriñ Tuubaa di ko jaaree ci Cheikh bu Ahad jëmm ji ñu duggoon léegi ci biir këram muy Cheikh Abdoul Ahad day koo xamee ne ku yaakaar Serigne Touba rek amel nga ko njukkal dafa liggéeyal Serigne Touba liggéey boo xamee ne képp kuy dund ci kaw suuf doon taalib Serigne Touba rek yaa ngi yaa ngi dund ci biir liggéey boobee nga xam ko ak nga bañ koo xam rawatina nag ñi nga xam ne dañoo dëkk biir Touba liggéeyal liggéeyal liggéeyal Sénégal gii ci tarixa yëpp la liggéeyal lislaam ji la njëkk liggéeyal liggéeyal Serigne Touba mbooleem lu bon loo xamee ne yëlloowut ci dëkk bi bakkanam la ci tegoon ngir liggéeyal Serigne tubaab ak lan bañ yaakaari Serigne Touba joojee mu amoon ci moom bañ a tas bis bi yi nga xamee ne moom lañ dëgmal muy ginnaaw suba murit yëpp ko waroon a feete journée nationale la waroon a doon bis bi nga xamee ne muy bisu gën ak àdduna ak Serigne Abdou Lahad murit yëpp ko waroon a feete ndax Serigne bu mag bi ci boppam moo ko njëkk a feete ba woolu woon ñenn ci nekkoon ci biir kër gi lu tam soxna Asu Mbàkke soxna Fat soxna Fatija laaj leen bu gan masaana gane jamono luñ koy ganelee mu ne laaxu caaxaan ca serañ gañ daan def ca saasa da koo fi tax ne ko gii gan kenn du ko ganee laaxu caaxaan ndax nootu ami caaxaan moo tax sëñ Abdou da daan wax naan mboolem turiñ may woowee ñàkk caaxaan ma ci gën moom ci gën a neex Serigne tubaa wax ci moom daan ne jëmm jii dama ko yaakaar simple laxat daan wax naan bu ma naree tas yaakaar yi Serigne Touba yàlla naa ko fekk ci boobu gis ba boobu bis ab taalib Serigne Touba la woon boo xamee ne ak gën ak addunaam la Serigne bi wax ci moom ci baatin lim wax ci moom ci ay wilaya ak i daraja yu mu ëndaale bi mu yegsee loolu yëpp da koo jël tekk ci suuf def ko laxasaay takk ko ci ndiggam doona bàyyi faalub Serigne Touba di ko liggéey liggéey bu wér mboolem ku mu bokkaloo Serigne kenn ku ne Serigne Touba la daan xool yow mus kenn ne kii ne maa moom bokk bay jël liggéeyub Serigne Touba bii teg ci bakkanam liggéeyal ko ci taalibe yi liggéeyal ko ci doomam yi liggéeyal ko ci dëkkam bi liggéeyal ko ci xasidaam yi liggéeyal ko ci alxuraanu karim bi liggéeyal ko ci jumaa ji te loolu ku fi mën di nekk doo génn loole mooy liggéeyub Serigne Touba mm-hmm. moom nag mu def ko ba noppi bàyyi fi mu naal boo xam ne ba léegi mooy dox kon nag murit buy dund doy waaxu yi dem ko ni amel nga jikko Cheikh Abdou Lahad kon na nag jërëjëf Cheikh Abdou Lahad yàlla ñu yàlla gën a dimbali gën ñu xettali gën ñoo nar gën ci liggéey Serigne Touba ñi bañ koo génn benn yoon mm. te seytaane bañ am wàllu ci suñu doxin wasalaamaaleykum wa rahmatulah waaw waaw léegi dafa am ñoo xam ne si nii dañuy yëngu ci wàllu whatsapp bi te sopp la lool te bëgg la lool fas yéene ànd ak yow liggéeyub Serigne Touba bi tàmbali nan ko ren te fas nañ yéene fépp fu sa soppe nekk siyaare bi fas fas na ko yéene ànd ak yow lan ngay wax soppe boobu ndax mi ngi lay waaw am nañ ci mbégte bu baax ci xalaat boobu maa ngi koy soog di jot nii waaye am nañ ci mbégte bu baax a baax lii daal mbir la moo xamee ne lu leer naññ la loo xam ne dañ ci teg seen bët liggéeyub sëriñ Touba la it soxlawuñ ci lenn it du mbirum àdduna du mbirum puukare du lenn loo xamee ne moo ñu tax a jóg lu dul ngërëmu Serigne Touba rek ak jëmm ji nga xamee ne dafa dégg liggéey Sëriñ Tuubaa lu ko kenn liggéeyut waxuma ne lam liggéey Sëriñ Tuubaa mën nañ mën nañ koom dédd waaye fas yéene nañ de moom ci boppam kenn duñu raw ci moom kon nag taalibe boo xamee ne da ngaa jóg ngir ànd ñun ci bis bii ànd ñun ci liggéey bii na nga rafet njort te na xam ne boo dee ñëw na nga takk laxasaayu taalibe ak pas-pas te lépp loo xamee ne mbañum sëriñ bi la fi ëndaale lépp luy bëgg-bëgg sëriñ boo قد لسنا من بالله ورسوله سالك فضل الله يتيه من يسا دينا علم كو تكل باغي نخم لوم ورا دون سيخ القديم جر جفت سيخ القديم جر جفت سيخ القديم جر جفت سيخ القديم Bambay sa maamu Sëñ Daaru sa maamu jërëjëfate